que dañoo jàpp ni li xew fii ci conseil constitutionnel nekk na loo xam ne si ëlëm nañu te du lu jub parce que ni ñuy écarté sunu candidat Karim dañoo jàpp ni teguñu ko fenn ndaxte jamono bi nga xam ne si juge yi ñi ngi war a génne seen verdict am nañ ci seen loxo firnde bu nga xam ne si wér na leen ni Karim dootul tubaab amatul nationalité sénégalaise tubaab te liñ leen sant mooy ñu fexe ba nga xam ne si kii falu ëllëg benn nationalité lay am te loolu lañ leen saytuloo waxuñu leen laneen te loolu it wóor na leen ni jamono bi nga xam ne si ñi ngi dàq Karim ci élection yi am nañu kayit gu leen firndeel ni Karim nekkat amatul nationalité française loolu moo tax ñu jàpp ni ñoom dañoo jël décision écartée illégalement et frauduleusement sunu candidat Karim et injustement sunu candidat Karim Meïssa Wade parce que bu fekkoonte ni kayit a ko war a jàlle am nañu kayit yi firndeel lépp ñun nag duñu nekk fii boobu ba léegi di waaj di préparer partie bi yëpp taxaw Sénégal gépp taxaw di xaar Karim ñuy nangu conseil constitutionnel di ko def looloo tax ñu déposé sunu comité d' enquête parlementaire te du ñun dong lañ ko def.